mbokk yi ñu ngi ànd ak euh, Cheikh Mahi Aliou Cissé di porte-parole bu Medina bàyyi Niass muy wax nag euh, kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ci lu jëm ci wàccaayu gàmmu gi ñu teewlu ko en direct sur la 90 point 1 FM. yatlu alayhim ayaati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba wal hikmata wa in kaanu yàlla nee na xéewal na way gëm ñi ba nga xamee ne yónni ci ñoom yonent boo xam ne. ci ñoom la jugee mu leen di jàngal kaawteef yàlla yi muy alquran di leen di jàngal xikma muy sharia donte dañoo nekkoon nit ñoo xam ne ni nit ñu réer lañ euh, mawlid bi mu ngi jublu ci mu nekk xew moo xam ne dëgg-dëgg xew yi fàttaliku teraanga gi yàlla may mbindeef yépp ci amal yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne teraanga am teraanga amam teraanga la pour mbooleem nekk gi waaye teraanga la pour mbooleem nit ñi waaye teraanga la bu gën a jagoo pour mbooleem koy gëm ñi yàlla tabaraka wa taala yooyu nag nga xam ne mu ngi jublu si ci lu sorewul dara ndax tey jii suñ diggante gàmmu ñaar fan ak juróom-ñett rek ci la toll Euh, taalibe yi nag fu nekk ñu ngi laajte ci àddina ndax danañ gàmmu wala duñ gàmmu ba dégg li nga xam ne ni moom mooy euh, dénkaane sëriñ bi dénkaane yooyu moom lañuy jotal mbooleem taalibe yi di leen xamal ne gàmmu pour ñun ci xaal buñ ko mën a defee rek danañ ko def ndax naafila yiw la goo xam ne naafila yi dafay topp rek ci farata yi ni nga xamee ne jullit bu mënee julli taxaw dafay julli taxaw bu mënul lu may wéeru dana wéeru julli bu mënul lu may toog julli dana toog julli bu mënul lu may tëdd julli dana tëdd julli bu mënul lu may junj sax dana ko def foofu la gàmmu tollu ci Cheikh Ibrahim tollu ko ci aw toppam nga xam ne waxtu bu jublu see rek dafay waajal boppam di waajal aw toppam di waajal Eh, eh, dëkk bi di waajal addina lépp waajal xol yi ci pare taataan ci yonantu bi sallallahu alayhi wa waajal xol yi ci pare jàngaat yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat ci ay jikkoom yi nga xam ne moom rek tey moom lañ yaakaar ci sauver addina ci jafe-jafe yi nga xam ne feebari xol yi ak feebari jëmm yëpp moo tax ñi ngi xamal taalibe yëpp ci ndigalal xalifa cheikh Mouhamadul Mahi ne incha allahu fas nañ eene gàmm ànd ak nag xam nañ ne gàmm gi mu ngi ñëw ci jamono boo xam ne àddina lépp ñi ngi nekk ci jafe-jafe feebar bi mbas mi nga xam ne tey dafa am ay tënku-tënku yum laaj am ay discipline yum laaj ñi ngi waaj nañ waajal gàmm comme niñ doon waajee waajal ko ci suñuy man-man waajal ko ci suñuy dundale ci yonent bi sallallahu alayhi wa waajal ko ci préparé julli ci yonent bi sallallahu alayhi waajal ko ci jokkooxaat ak waajal ko ci beesalaat suñ digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa waajal ko ci xoolaat suñ bopp naka lañ war a taxawee ci lislaam naka lañ war a taxawee ci àddina naka lañ war a taxawee ci askan bi naka lañ war a taxawee sax ba taxawee ko ci mbas yi nga xam ne ni tey jii moo nekk ci àddina bi nga xam ne tey am na ay tënk yum laaj yoo xam ne képp koo xam ne tim yaa ngi gàmmu fii wala yaa ngi gàmmu si fii war nga cee bàyyi sa xel moo tax ñu ngi oo mbooleem kilifa yi mbooleem yaraatekat yi ñi gën a soñju taalibe yi soñju njaboot gi xamal leen ne jamono bu soppeekoo da ngay soppi ni nga xamee ne noonu ngay doxalee ndax soppi ni ngay doxalee ba def lu baax li nga daan def nga xam ne réew mi daf koo soxla addina soxla ko diine ji soxla ko mooy waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam dellu ci ay jikkoom mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi ci ñi nga xam ne ñoo gën a xëy ci moom ndax moo wax ne ñi gën a xëy ci man yowmal xiyaamati mooy ñi gën a bëri julli ci man dekkal ko ci jikkoo jikko yi rafet yi ndax wax na cim ci beneen xadis ne ku gën a jege ci man eh, jotaay yowmal xiyaamati mooy ku gën a rafet jikko dekkal ko waajal ko ci waajal loolu yëpp loolu waaye dekkal ko waajal ko tim ci ko ay ñaan nga xam ne moom mooy ngànnaay yi jullit yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne addu'a silahul mumin ñaan mooy ngànnaay yu jullit ñaan dana jëriñ ci lu wàcc ba pare ak lu wàccagut kon naka jekk gàmmu loolu la woon nettali siiraay yonent bi sallallahu alayhi nettali jaar jaaram jaar jaari sahaaba yi eh, dundee ko dekkal suñ yoon tegaat suñ yoon ci yoon nga xam ne moom mooy siraatal mustaqim muy jotaay boo xam ne tim jotaay bu barke la jotaay ñaan la jotaay xettaliku la ndax Cheikh Ibrahima radiallahu anhu wax na ci ay waxam ne masuma ñaan yàlla ci buntu yonantu bi ci weer bi nga xam ne ci la juddu lu ma yàlla may na ma ko kon nag loolu dafa nekk loo xam ne xiw la boo xam ne duñ ko xañ suñ bopp duñ ko xañ suñu topp duñ ko xañ suñu réew ndax dañ daje ñaan yàlla ñaanal Euh, dëkk bi yëpp ñaanal taalibe ñaanal réew mi ñaanal président ñaanal ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom liggéey réew mi ñaan yàlla mu jëlee fi mbas mi ñaanal yàlla aalamul islaami waaye ñaanal àddina bi yëpp sax nga xam ne tey benn kër la lu xew fii dana xew fële ci gàttal loolu mooy message bi nga xam ne bëggoon nañ ko joxe ci euh, ndigalal sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mahi ku jot na jotal ku jotut waaye mu ngi wax mu ngi insister ci discipline bi nga xam ne nii jamono jii daf koo soxla mu ngi ci képp koo xam ne nii yaa ngi pareel gàmmu nga boole ko pareel tënku jël euh, waral masque yi nga xam ne jamono ji daf koo laaj barrières yi nga xam ne jamono ji daf koo laaj distance yi nga xam ne jamono ji daf koo laaj set yi nga xam ne jamono ji daf koo laaj discipline yooyu loolu dafa insister ci loolu ne képp koo xam ne daal da ngay gàmmu si képp koo xam ne tim yaa ngi waajal gàmmu ànd koog moom ànd koog xadara bi na nga xam ne bokk na ci li nga koy waajalee jikko yi nga xam ne ni tey jamono loolu la laaj te loolu moo war a nekk euh, jikkoy julit waajal ko ci delluwaat ci yàlla waajal ko ci tuub waajal ko ci setal xol yi waajal ko ci xam ne dëgg-dëgg ku bëgg li mu bëgg waxtu wu ko jegee rek xolam dana gën a tënkoog moom loolu mu seet boppam ndax mu ngi ci jikko yi nga xam ne dëppoo na ak jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa àgg ci jotaay yooyu nga xam ne dëgg-dëgg koy def rek pour jàngaat tollootuñ fu ñuy waxee ndax gàmm war naa am ndax warta am ndax ku koy laajte rek mu ngi laajte ndax nit war naa jàng ba léegi ndax nit war naa jàng siratu rasulillah sallallahu alayhi wa ndax nit war naa toog ak ku ko gën a xam yàlla gën koo xam alquran gën koo xam jamono mu jàng ci moom jël ci moom ay jikko kon loolu dëgg-dëgg buñ demoon ba mënuñ lu may bànneexlu ci xol yi loolu ku nekk da nga toog fi nga toog def ko danañ ñu ngi koy waajal nañ ko waajal comme ni Baye waxoon ne waajal ko ci màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci soxlawoo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama soxlawoo ah, jikkoo ay jikkoom soxlawoo dundale ci yàlla loolu yëpp nañ ko waajalee gàmmu gi waaye buñ fàttee liñ njëkk a wax xam ne ñu ngi jëm ci jamono joo xam ne masuñoo gàmm ci jamono ju mel noonu kon danañ jël tënk yoo xam ne nii masuñoo tënku tënk yu mel noonu te loolu la sëriñ bi dénkaane te loolu la euh, waxanteeg ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci dëkk bi ñi nga xam ne ay acteurs lañ ci e, gàmmu gi ansaaru diin ci njiital cheikh Mouhamed Hamina Komaaf nga xam ne ci njiital cheikh Ibrahim Mamoun nga xam ne mooy organiser gàmmu gi ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñoom di dimbalante ak ñoom ci liggéey yi nga xam ne euh, moom lañ jublu si ñi ngi euh, ñaan autorités yi euh, xam naa pour rek wane sa bëgg-bëgg ci li nga bëgg la waaye xam nañ ne niñ ko waajee ñoom noonu lañ waajee pour jàppale ñu ci lépp loo xam ne dana yombal gàmmu gi dana yombal tim jël matukaay yooyu nga xam ne moom la gàmmu ren soxla ndax gàmmu guñ mas a gàmmu ñi ngi ànd ak ñun di gungeante ñun ci liggéey yi nga xam ne nii jamono bi mu ngi ko soxla nañ soxla woon yooyu nañ soxlaa yooyu ba tey waaye soxla nañ leneen mooy li nga xam ne tey naka la ñuy def ba tënku ci li jamono laaj ñu ngi ñaan ñi jàppalante ñun ci loolu di ñaanal président di ko jottali ay ñaani sëriñ bi yàlla may ko tawfiq ndax liñ jublu si ku yàlla may tawfiq moom moo ci yëngatu naka jekk ñu ngi doon yëngatu ci loolu yàlla may ko tim ñi nga xam ne mu ngi ànd ak ñoom di liggéey yàlla tàggal leen kër leen ci li nga xam ne nii moom mooy jëriñ Sénégal tey ëllëg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mu doon Cheikh Mahi Aliou Cissé porte parole bu Medina Baye Niass daan addu ci gàmm gi ak li nga xam ne mooy ci jëm ci wàccaay bi gàmm gi nag mu confirmé ne incha allah rab yi dina am ci kaw ñu respecté li nga xam ne moo di tegtalu kër docteur yi ñu leen di jaajëfal